alors ñu dalal suñu gan docteur Cheikh Tidiane Sow euh, coach en communication politique conseiller en communication du premier ministre Ousmane euh, Sonko fas yéene sekk ak moom waxtaan bu yaatu dikkaat bu baax ci li nga xam ne moo di atelier bu député yu Pastef amoon enjeu euh, ci élection législative yi nga xam ne moom la jot génn docteur ñu ngi lay nuyu di la dalal jàmm ci émission matinal point sn. <laughs> maa ngi leen di fay di leen jërëjëfal ci invitation bi. Mm-hmm. alors euh, docteur ñoo jógee ci ay élections législatives ban jàngat nga ci am laataa ñuy gën a xuus ci ponk yeneen ponk ki ah élections yi kay moom am na plusieurs lectures. Mhm. xam naa ne moom lu may gën a jaaxal Sénégal xëy na loolu war nañ ko seetaat c'est-à-dire avant élection yi dangay yaakaar ne affaire yi c'est très stable c'est-à-dire da ngay yaakaar ne sax cent soixante-cinq députés yi ñii dañuy am soixante ñii am soixante-cinq ñii am vingt. Mhm. su ñu demee élection ba pare nga gis ñii di am ay un ñii di am ay cent trente ma ne xëy na peut dafa amul ay sondage ci dëkk ci réew mi loola sax lan mooy expliquer loolu. expliquer loolu mooy nit ñi dañuy wax lu bëri te en réalité du ñu représenter lu ñuy wax loolu rek la. Hmm. cest di nga gis ay nit di wax mais nit yu ñu am bëriwul noonu yëpp. man daal loolu jàngat premier jàngat laa ci am donc loolu étonnement la. Mm -hmm. bon évidemment je ne suis pas étonné que Pastef am la majorité. mais écart bi nu mu magee loolu xaw na xaw na day waar il ñu defaat beneen lecture. Mhm. lecture boobu moom xëy na aussi coalition yu doon am yi c'est des coalitions contre nature et donc électeurs yi ñuy jàppee ay nit yuy topp ay groupe mhm. loolu en fait amul. Mhm. électeurs mën a am lecture politique ci Sénégal. loolu nag war nañ ko seetaat aussi. Mhm. ñu gis ab analyse nga def ko bu yaatu jëmale ko ci Pastef mais également jëmale ko ci yeneen coalition yi lu ci mel ni euh, parti euh, ki nga xam ne mooy takk wàllu bu euh, l' ancien président Macky Sall. mais mhm. également ñi nga xam ne ñooy sàmm sa kàddu ak yeneen ñi nga xam ne fare bokkoon nañu ci élection yi ñu weesu. Mhm. waaw loolu dëgg la loolu analyse boobu analyse campagne rek la. parce que man dama bokkoon ci campagne bi aussi loolu moo tax ma bind ci ay écho de campagne. soo gisee généralement ci élection bi xamoon nañu ñaa ña ñeenti groupe ñoo doon vraiment compétir mooy takk wàllu mooy sàmm sa kaddu mooy. jàmm ak njëriñ bu Amadou Ba jàmm ak njëriñ bu Ba mm-hmm. ak ak Pastef. Mm-hmm. vraiment c'était les grandes entités. soo xoolee aussi entités yi da ngay xool ni nuñ ko composé euh, c'est-à-dire même par exemple intercoalition bu ñu buggoon def Dakar loolu vraiment c'est c'est tellement contre nature ça va tellement large. da nga xam ni foofu euh, y a sens en fait cest dire que amuñu benn logique ba nga wax ne logique bi moo tax ñii ànd doo doo ko gis mm-hmm. Karim Wade ak euh, Macky ñu ànd loolu y raison surtout que Karim bokkoon na ak Pastef ci élection présidentielle yi te loolu yàggul. Mm-hmm. huit mois rek la. donc vraiment na euh, ngay gis daal c'est des c'est des ententes contre nature. Mm-hmm. donc ça c'est un peu ça que j'essaye loolu a wax ci ci ci papier boobu. deuxième point bi mooy aussi avenir politique nit ñi parce que aussi soo jëlee benn position dafa am ay pour yow. c'est-à-dire ñuy xalaat ni jël naa position bi suba dinaa jël beneen position naa mën a rebondir comme nu ñu ko doon waxee off loolu aussi nit ñi peut-être léegi dootuñu ko nangu. ou bien en tout cas dañuy génne ñenn ñi ci géopolitique bi. même les jeunes. même les jeunes même les, les jeunes ils peuvent peut-être rebondir mais ça va être un peu long c'est-à-dire xam nga léegi on n'a pas d'élection pratique on a trois ans sans élection. ku mel ni Barthélémy Dias par exemple. ça va moom jeexal na. Ah presque sûr que non Barthélémy jeexal na noo bëggee mu rebondir. maire de Dakar. maire de Dakar c'est c'est les prochaines locales il ne l'est plus ça je prends le pari de le dire ici. il n'est plus maire de Dakar au prochain local lan moo tax mu nekk maire de Dakar moom kenn su demoon du nekk maire de Dakar Pastef moo taxoon mu nekk maire de Dakar Pastef moo taxoon ñu bëri nekk ay député vous n'êtes pas d'accord avec moi. bu ngeen ni ngeen may déglu rek. <laughs> <laughs> on vous écoute docteur. <laughs> non soo xoolee par exemple la mm. composition de la quatorzième législature te nga xool élection yi léegi. Mm-hmm. nga xam ni Pastef moo defar ñu bëri. enfin Pastef moo amoon ne pas être arrogant ci coalition bu ñu bokkoon bi Yewwi Askan Wi pour ñu mhm. bëri nekk ay maire ñu bëri nekk ay député te léegi élection yu am yi nga xam ne Pastef dafa dem moom kenn mhm. wane na que ñooñu lu ñu mënti def ay seen évidemment am na ñaari bi di wax ne mooy euh, c'est yéeguñu ko teeluñu ko yéeg mun ñoo woon machine bi mën suñu leen joxoon sax cinq ans duñu mën a nekk ñoom ba nax sénégalais yi pour am ay voix ah ouais est ce que comme par exemple bu ñu nattee bu baax yi conseiller nga ci Ousmane Sonko bi mu jëlee décision ne day dem ak Pastef kese ñu bari dañoo posé wu question est ce que dafa jàng dans le passé que effort yi mu doon def ba ñenn ñi nekk député ñenn ñi nekk maire loolu ngeen dajale ne on va plus commettre ces erreurs nañu dem ak ñun kese pour bañ a yeggati ci chapitre gu mel noonu. non moi je pense bon d' abord euh, euh, Ousmane Sonko c' est quelqu'un de très intelligent en politique. c'est-à-dire vraiment il est bon il est très intuitif d'une mhm. certaine façon c'est-à-dire que day jël ay décisions de façon intuitive mais ces, ces décisions intuitives sont très véridiques à terme c'est-à-dire euh, moom xam na ne qu'il y avait pas assez de temps et le facteur temps a été le facteur principal ci affaire élection yu ñu convoqué parce que c'est quand même des élections anticipées avec le fait que nit ñi xamuñu woon vraiment mandat xamoon nañu dina am ay euh, dañuy dissoudre l'Assemblée national mhm. bon nit ñi dañuy xam mais xam nga même quand il y a eu le mont Vésuve bu mu doon lakk. Mhm. nit ñi dañu xaar ba au dernier moment soog a dem. te pourtant xamoon nañu dina xew. da ngay gis euh, euh, événement 11 septembre. waaw mhm. buy tuur yi doon daanu am na ñu doon SMS. c'est-à-dire que les gens ont toujours la difficulté de xam d'avoir la bonne perception par rapport aux événements qui se passent. nit ñi xamoon nañ dañu am dissolution mais kenn si ñoom préparé wul pour dissolution boobu hmm. je pense que foofu la leen di Ousmane Sonko rawee hmm. c'est-à-dire moom xamoon nañu que temps bi permettre def ay coalition di waxtaan ay di négocier loolu xamoon na ko première chose ouais. donc du coup il a dit moi je que c'est la c'est la bonne résolution il est venu expliquer ça à président où il tous les alliés qui ont fait de Diomaye président mais ñooñu ils n'étaient pas ils n'étaient pas contents il pensait que c'était pas la bonne solution et ñu bëri wax nañu ko jour boobu mais en réalité il était convaincu que boobu mooy solution bi et à terme les événements lui ont donné raison mmh. donc en termes de perception politique il est vraiment c'est quelqu'un de et ça a de été décidé quand exactement et comment ça a été décidé quand et comment comment ça a été décidé d'aller seul oui. bon ça je pense que c'est une résolution qui a prise avec avec avec les gens du du parti c'est-à-dire euh, Euh, les gens dans, dans le comment on appelle ça il y a un gouvernement du parti j'imagine avec le président le comité directeur merci le comité directeur du parti ça je, et j'imagine qu'il a eu à défendre cette position pour convaincre les gens dans la coalition Diomaye moi je fais partie de la coalition Diomaye il est venu nous en parler et il y a eu une concertation par rapport à ça mm-hmm. donc j'ai envie de dire je ne peux pas te dire qu'il a pris la décision seul mais il nous a associés à la discussion à la à la à la, à la décision waxtaan nañ ci. na la ngay tontu ñiy jàpp ne yéen seen score dafa wàññeeku présidentielle ngeen am deux millions quatre cent mille voix euh, ngeen wàcc ba presque deux millions un million neuf cent quatre vingt sept mille voix une différence de de cent mu wàccee noonu. Euh, beneen bi si ñu leen di naan yéen defoon leen fi lu fi président Macky Sall defutoon en 2012 wala li fi président Abdoulaye Wade amu woon en 2001 après euh, bi ñu defee législative yi lan ngay tontu ñoom ñu jàpp ne defoo leen lu extraordinaire. j'espère que ñu wax loolu amuñu une voix ak trois voix <laughs> parce que loolu moom c'est c'est quand même malvenu pour wax loolu non mais d'abord première chose il compare des choux et des carottes une élection présidentielle c'est complètement différent ça n'a rien à voir d'accord mhm. donc à partir de là je pense que ce débat ne tient pas euh, chercher à avoir la petite bête je vais dire ça c'est politique ils peuvent le faire mais il n'y a aucune comparaison c'est quand c'est c'est ça le ce que je disais au début c'est-à-dire que fu ñu leen tegoon est-ce que egsi nañ foofu wu wuñ foofu loolu mooy baromètre bi c'est pas que en 2012 Macky defoon na lii et cetera loolu san san san san san tient pas mm-hmm. soo xoolee les taux de participation ma xam ne à midi tout le monde était entre train de dafa tuuti dafa tuuti dafa tuuti à à la fin des fins taux de participation bi c'était plus élevé que les élections de 2022 mmh. qui étaient des élections normales organisées et tout le monde était prêt mmh. bon donc loolu daal je pense que c'est de la petite bête il ne faut pas trop accorder d'importance dessus mmh. euh, seen formation bi ngeen def ngir seen député yi Pastef euh, c'était quoi euh, l'objectif ak tamit euh, loolu la ngeen si jublu woon waaw loolu laa doon wax sànq c'est-à-dire soo gisee euh, euh, le caractère intuitif et décisionnel premier ministre foofu la c'est-à-dire moom dimanche la ñu gagné le lundi mu wootee Ayib Daffé mu ne ko le kii le secrétaire général du du parti mun ko jëlal député yëpp nga yóbbu leen nga former leen pour pourquoi parce que moom xam naa ni ba mu nekkee en 2017 mu nekk moom député unique gisoon les difficultés de ñëw à l'Assemblée nationale moom moom kenn te moom kenn il peut le porter. Mm-hmm. ñu fa nekkoon 2022 dégg naa ñoom Ayib di ko wax ni ñun dañuy ñëw rek ah nit ñi duñu wax dara ah soo doxee ci couloir bi laajte sax kenn kenn kenn du la répondre donc ils on appris en marchant c'est-à-dire lu ñu xam yëpp léegi dañ ko xam par la pratique xam naa loolu bëgg éviter seen seen groupe parlementaire qui est quand même un grand groupe d'une part et puis ils sont très jeunes ah c'est vraiment beaucoup de jeunes députés te la plupart mosuñu dem assemblée donc je pense que c'est une bonne idée une bonne initiative de la part du du premier ministre enfin du du président du PASTEF euh, def une une sorte de formation mm-hmm. pour nit ñi mën a xam tuuti lan moo fa nekk. donc on peut espérer un changement par rapport à quinzième législature bi. en ah, ça je suis certain qu'il y aura un changement. Mhm. mais mm -hmm. enfin ça c'est dans toute chose soo jàngee benn affaire foofu loolu ngay gën a xam tu tu te comporteras mieux. est-ce que du du début kese jusque euh, pour un début ñu defal leen formation est-ce que dina nekk lu nga xam ne continuité la. Euh, loolu je pense que la demande en tout cas est là parce que moi-même j'ai moi-même j'ai j'étais formateur là-bas hier j'étais mm -hmm. là-bas j'ai passé du temps hier là-bas ouais. et la demande c'était que dañu bëgg dañu bëgg bëgg. Docteur, pouvez-vous vous redresser s'il <laughs> ah, la voilà. Merci, Donc je disais que euh, j'ai participé même hier à la formation et donc du coup j'ai vu qu'il y avait quand même une demande au sein des députés de dire ñi dañu bëgg approfondir lii dañu bëgg xam un peu plus et cetera et cetera. Mhm. donc loolu c'est important. alors euh, docteur sa xel màcc na jëm ci wàllum euh, communication. mais tey jii pencum ndaw réew mi ci niñ ko fas yéene lalee ak ci ni muy doxee ji ñoom ñi nga xam ne ñu yees lañu ñu fas yéene di leen tàggat pour ñu répondre ci attentes yi mais doxal ci ni mu waree yan technique ak yan méthode lañ leen war a mën jox de sorte que député yi buñ ci jaaree war a mën a répondre sur ces questions. waaw ah, mu démb sax maa nga doon wax ci député yi c'est-à-dire que très souvent et ça je pense sénégalais presque moomeel noonu noonu mm. euh, dañuy wax lu bëri. les gens parlent beaucoup même pour joxe benn idée benn concept dañ koy entouré ci wax ju bëri d'accord am nga assemblée nag moom par exemple trois minutes ngay am donc déjà nit ñi dañu war a jàng en trois minutes de pouvoir dire lu ñu xalaat l'essentiel de leur pensée ça c'est pas facile. non non ñu bëri dañu yaakaar ne yomb na. mais c'est très difficile je vois quelquefois kenn di jóg pour poser benn question. ñu ne ko tu as une minute il n'y arrive pas. parce que pendant quatre minutes day tourner autour di joxe contexte lu dul jeex. Ah di wax ne je une question wax question bi donc loolu déjà dañ ko war a jàng. aller vers l'essentiel. aller vers l'essentiel pouvoir conceptualiser ce que tu veux dire. cest à mhm. c'est structurer ce que tu veux dire c'est pas seulement aller à l'essentiel mais savoir conceptualiser. Mhm. te loolu même léegi soo demee euh, université nga conceptualiser quelque chose leur idée leur pensée. d'accord loolu moom je pense que jàngat bu ñu war a def. Mhm. Mhm. pour loolu il faut aussi nga mën a déglu parce que ñu bari mënuñu déglu. d'accord da ngay gis ay nit yoo xam ni dañuy déglu rek pour tontu la. Mhm. mais duñu déglu pour comprendre quelque chose donc loolu aussi jot nañ ci waxtaan démb. le dernier point mooy soo bëggee changer ay comportement soo bëggee nit ñi def leneen loolu la ñu bëgg ñu def ci quinzième législature yi. il que seen xalaat nekk différent. il faut la façon de penser mu nekk différent loolu si jàngat la il faut nit ñi jàng nu ñu mënee xalaat lenn différemment suñu joxee par exemple problème bi dégg naa la sax ngay waxee affaire Abbas Mbaye mhm. il y a différentes perspectives du xoolee loolu mhm. nu ñu mënee am différentes perspectives loolu pour analyser loolu loolu aussi dañ koy jàng mhm. Ousmane Sonko ndax ni mu mel ci biir parti bi ak ni ñu ko joxee cër est yaakaar nga ne doxalinu député yi dina war a mën a nekk de ces considérations ak pensées nit ñi di jox député toujours nekk dans l'exécution des besoins de l'exécutif ou bien du parti. bon il faut bien sérier les choses c'est-à-dire que est le président parti PASTEF. Oui. il est le premier ministre. Oui, effectivement. donc il est dans l'exécutif en tant de premier ministre. Mm -hmm. donc assemblée c'est lié plutôt au président de la République. Oui. d'accord c'est le chef de l'exécutif. Mm -hmm. donc à partir de ce moment moom je enfin ça dépend un peu de fu muy su su nekkee par exemple PM il n'aura rien à littéralement avec le l'Assemblée nationale. ça c'est voilà. mais mais yow. moom fu mu jëm. <laughs> moom fu mu jëm waaw naa ne bëgg nga mu ñëw fi ngeen waxtaan. <laughs> waaw loolu moom na la lool mais. mais mais en tant que son conseil technique en communication ngeen liggéey à la primature ndax yow jàpp nga ne. Euh, mu des primature moo gën wala ndax mu dem assemblée nationale. non moi je pense que mu des primature moo gën parce que d' abord pour plusieurs raisons. c' est dire mm-hmm. que première raison bi mooy amoo bu ñu gañee déjà début bi ñu ngi doon la eh, seet est ce que moom day def pré day des président de PASTEF day dem assemblée nationale parce que mënoon na dem assemblée nationale temps boobu ok évidemment il fallait négocier avec les autres mais il aurait pu aller à l' mu nekk premier ministre je pense depuis boobu def na choix bi en fait. c'est-à-dire choix ba ngeen di bi léegi. Hmm. c'est un choix qu'il a fait dès euh, le le PASTEF a gagné la présidentielle. ça n'a pas de sens léegi mu jógee primature enfin, pour man en tout cas. Mm-hmm. dem assemblée nationale. munoon munoon na bañ a def loolu. toog président du PASTEF ba élection yi am léegi mu dem assemblée nationale donc su demee premier ministre léegi station bu mu occupé bi c'était pour impulser un peu lu mu nekk ci projet bi loolu mhm. c'est une phase d'application qu'il faut faire d'exécution mhm. te boobu moo gën a am solo boobu moo gën a diis que phase yu ñuy jàll yëpp la la prochaine chose à faire aujourd'hui et qui est la chose la plus importante ci législature bu ñu nekk bi mooy vraiment appliquer le référentiel am na ñu jàpp ne bu demee assemblée nationale foofu noonu moo président risque de dualité yi wala de duel dafay wàññeeku tuuti am ñu jàpp ne déedéet am na mais loolu ngay dégg ñu koy wax tout le temps ñu naan bu ñu moytu ñoom ñaar kat mun na ñoo xuloo wala nangam nguur dafa fiir euh, boo moytu bu nekkee PM ni sax moom mooy yor réew mi nekk moom lañ fal yooyu itam yaa ngi koy dégg ci ci débat bi nan la lay. en tant que proche collaborateur euh, mm. ah, xam naa ne loolu aussi wax ju bari rek la parce que ñoom ñaar macha allah euh, dara nekkul seen diggante. Mm-hmm. te le premier concerné le président Bassirou Diomaye moo moo koy wax moo wax ni man man. man dama lutter pendant des années pour moom mu nekk président su ngeen bëggee moom mu nekk président amu ci problème. Mm-hmm. amu ci benn problème donc je pense daal loolu lay wax la c' est aussi plus nit ñi dañuy wax seen bëgg-bëgg loolu la ñu bëgg te loolu amul te aussi je pense que dañu ragal Ousmane Sonko loolu la tax si ñu bëgg mu am dissension ci ñoom ragal dans le sens de de politique ah c' est à dire ils savent que. il est bien meilleur que politiquement c'est tout donc ils ne veulent pas du tout que le Pastef réussisse donc ça c'est normal c'est je dirais alors vas-y pencum ndaw réew mi Ousmane Sonko yaa ngi wax pour yow li gën fële la kan ci pencum ndaw mi ku war a mën a piloter le projet de Pastef pour l'hémicycle ah foofu y a y y a plusieurs choix c'est d'ailleurs ça qui est qui est qui est qui est remarquable et et difficile au sein du pour eux qui est remarquable soo xoolee euh, ce qu'on appelle le leadership au Sénégal tradition bu ñu amoon mooy da nga gis benn leader jeex na moom moo yore seen parti te moom mooy defar la la pluie et le beau temps ci parti bi soo ko gisee ci Macky Sall lool soo ko gisee ci Ablaye Wade noonu la woon soo ko gis ñoom ñëpp ku ci jeexal rek parti bi day fay loolu moo amoon Pastef daal mooy le seul parti ba xam ni bu ñu téyee Ousmane Sonko mën nga gis quatre ou cinq yu ma mën a wax ne ñii mën nañu nekk président te ñu nekk président ça c'est un leadership très différent mm-hmm. c'est-à-dire qu'il quand Macky a ak qu'il ne pouvait pas partir. Mm -hmm. tu as vu tout de suite il y a eu des dissensions Abdoulaye Daouda bëgg na dem Amadou Ba bëgg na dem ndeysaan sama xarit euh, John bëggoon a dem paix paix à donc ñu bëri dañuy génn bëgg dem parce que doo gis loolu. Mhm. kenn xamul woon kan mooy dem mu ni Bassirou Diomaye Faye la moom moo moom moo dem moom moo ko jël te ñeneen ñi kenn waxul benn mot. du dégguloo kenn di wax ne déedéet man d'accord moom man damay dem sama sama wàll donc il a ce leadership là donc au niveau de l'Assemblée nationale c'est pareil. Mm-hmm. a au moins cinq personnes yu mën a nekk de président. comme kan ñu mën a jàpp. ñu mën a jàpp. Mm. mën nañu mën na ko nekk c'était le président du groupe parlementaire. Mm-hmm. Amadou Ba mën na ko nekk. d'accord il a l'expérience de l'Assemblée. il a un jeune là Sané peut-être il est un peu trop jeune on va l'écarter il va y a maître Tall mën na ko nekk aussi donc il a au moins mën na nekk aussi le le doyen. le doyen Alla Alla Alla aussi mën na ko nekk. Alla oui j'étais j'étais très il a fait une intervention hier qui était. Mhm. pour son âge les facultés qu'il avait de de de faire un discours de de cette mais justement son âge est-ce que permet mën na koo may mu war a jiite Assemblée nationale xam na ne foofu yenn saa yi les débats sont houleux difficiles à recadrer parfois. Euh, est-ce que est-ce que son âge ñu ngi koy ñaanal yàlla mu gën fee yàgg gën a wér. Euh, mhm. doyen Alla Kane mais est-ce que énergie boobu noonu amati ko maanaam mën a xuloo mën a kii eh, comme li Amadou Mame Diop doon def yenn saa yi eh, allez là-bas <laughs> est-ce que mën na ko. waaw loolu moom mën na ko loolu daal la wax ma ne ko. Mhm. dégg naa ko démb muy wax. Mhm. bon d'abord il est très structuré. bon am aussi une mémoire. de l'histoire du Sénégal di ko di ko nettali comme ça sans donc c'est quand même aussi aussi def na ko.

mais Sénégal on dirait dañu am benn problème ak. <laughs> Euh, docteur vous êtes conseiller en communication du premier ministre parfois le PM yëkkati ay kàddu nit ñi jàpp ne que kàddu yooyu dafay ëpp wala ni mu war a waxee euh, waxeewul noonu. Hmm. waaw loolu dana am xam nga na après y a des communications de crise mu doolu lañ koy def euh, c'est-à-dire que la communication de Ousmane Sonko est, est à niveaux. là où il est vraiment le meilleur, c'est quand il parle de façon spontanée et qu'il est devant une foule. C'est-à-dire, par exemple, c'est quelqu'un qui n'aime pas lire un discours. Il a des points, il a des notes, et c'est autour de ça qu'il construit son discours. J'ai des gens comme ça. Moi, j'avais l'habitude de travailler avec des gens pour qu'il fallait écrire un discours structuré, ñu ñëw lire ko. Mm, ces discours ne sont pas préparés? J'ai pas dit ça. c'est une question. <laughs> évidemment il prépare ses discours. Oui. ce que je dis que. Mhm. Euh, yorewul benn euh, xam nga ñenn ñi da ngay gis ñu ñu préparer seen discours enfin dañuy bind seen discours. Mhm. préparer ko ñu ñëw lire ko. délivrer ko c'est plus le cas par exemple du président Diomaye. il est beaucoup plus dans mais c'est aussi sa fonction qui fait ça il est moins en rapport avec des foules euh, le, euh, euh, le premier ministre il est différent c'est-à-dire que lui euh, il a une trame de pensée vous en parlez mais il fait des points un deux trois quatre du ko bind. Mhm. daf koy noter mais du ko bind voilà il fait des des points si vous voyez même souvent quand il il a une petite feuille bu mu am les différents points dont il va parler pendant la campagne par exemple da ngeen gis su demee Matam il a un point sur les différents thèmes de Matam mais il a l'intitulé de thème. Mhm. lu muy wax autour de l'intitulé de thème c'est spontané ñi lu ñu lu ñu bindul moi j'avais ils ne disent jamais ce qui n'est pas écrit. mais est-ce que boobu gënul prudent moom à son niveau moom premier ministre président du parti Pastef euh, est-ce que gënul prudent que mu bind lépp waxtaan tiisoo si ak son son staff soo gaa mën a euh, bécc ay kàddu. il il fait ça mais c'est pas tout le temps. Mm. son style n'est pas de le parce qu'il y en a qui le font de façon systématique. Hmm. il le fait lui pour quelques grandes occasions. pour des éléments très pour des grandes occasions il le fait.

boobu style sax moo ko gën moo ko gën a jig quelque part il est mieux dans cet exercice là. mais parfois comme li la soxna Asou wax bu waxee day def polémique derrière. waaw c'est sorti par exemple quand il parle de mille milliards dans un compte ci biir campagne bi. Mmh. quand il parle d'un rapport ci mbirum benn général ça ça fait débat après. Hmm. yooyu. est-ce qu'après euh, du am tuuti ay regret yu ni am par rapport à ces sorties wala ñu koy recadrer tuuti wala yow na ngeen jàpp na rek loolu ñu mën a comprendre la. non non non il a évidemment on, on le recadre il il il lit de ce qui se passe il est très intelligent c'est ce que je peut-être euh, on ne le sentait pas parce que c'est pas écrit sur le front. Mm -hmm. mais il sait analyser les choses assez rapidement donc il la preuve quand il y a eu cette euh, moi je l'appellerais une bourde. par rapport, par, par rapport aux, aux, éléments de vengeance, qui était quand même quelque chose de très émotionnel qu'il a eu. Euh, quelques heures après, il, il s'est rattrapé, il a reconnu, il a fait une, une, un communiqué. Donc c'est quelqu'un qui sait reconnaître ça. Mais l'autre, c'est sa nature. C'est-à-dire que l'un les prudence, l'autre. C'est aussi ça qui fait que les gens l'aiment en fait. C'est-à-dire l'autre, si on dit des côtés, il devient un peu comme tous les autres. Il, il n'est pas dans le petit calcul de, de en fait. donc et c'est ça qui fait sa sincérité loolu mooy def nit ñi di ko di ko bëgg parce qu'il est comme les autres en fait yow noonu nga mel da nga nga génn fi benn affaire mu si yow tu peux être un peu plus sanguin tu peux être un peu plus raisonnable on n'est pas tous du même niveau tout le temps mm-hmm. moom noonu la il est comme un peu tout le monde est-ce que c'est facile d'être euh, le conseil technique <laughs> comme du premier ministre Ousmane Sonko est-ce que c'est facile de travailler avec la communication dans toujours tout est facile comme on dit moi j'ai une petite règle je me dis les choses se quand elles, sont déjà faites d'accord euh, évidemment quelquefois da ngay bëgg a def lu lu bëri c'est-à-dire tu je peux apporter beaucoup plus je peux être plus présent je peux faire beaucoup plus de choses mm-hmm. et puis ça euh, satisfaire donc euh, oui c'est facile parce que c'est quelqu'un de, de qui, qui, réussit beaucoup de choses, qui est très instinctif, instinctif et ses instincts ne le trompent pas beaucoup. Donc c'est facile dans ce cadre-là. C'est quelqu'un de très généreux aussi dans la pensée. C'est-à-dire qu'il discute beaucoup avec les gens. Mmh. Euh, ça ne paraît pas trop, mais euh, c'est pourquoi c'est difficile. C'est là où c'est le point difficile. C'est-à-dire pour le convaincre, c'est pas facile. vous venez avec un truc, vous lui dites ça, il ne le prend pas pour acquis, il va vous poser mille questions. Il serait un bon journaliste d'ailleurs parce que vous avez vu, hein, c'est un bon <laughs> lanceur d'alerte. Mhm. Il pose énormément de questions. D'ailleurs, loolu moo tax ñun ñu ragal ko ces experts dañu ñëw dañu ragal parce que dañu wane ah lii su ma ko po su ma ko waxee il va me poser cent cinquante questions il vaut mieux que je me prépare. est-ce que ragal boobu du leen empêcher pour ñu mën a def travail correctement. c'est ça mais d'avoir un climat de confiance pour que les gens puissent venir à lui et lui dire ce qu'ils pensent bien sûr mhm. loolu aussi am na euh, ñu bare bari comme comme lu ñu wax sànq ah, dañ naan Ousmane euh, dafa mel ni xalaatam rek kese moo ko doy duyu ñeneen ñi est-ce que réellement c'est le cas wala moom ngay nemmeeku quand vous discutez ci benn sujet boo xam ne wala ci yoo xamante ni parfois da koy am wala mu def débat ba pare jeexal ngeen di waxtaan est-ce que loolu ngay nemmeeku yow nag solo dafa xaw a xóot. est-ce que léeg-léeg j'ai compris l'essence. voilà <laughs> je ne parle pas <laughs> hors sujet. waaw non non c'est-à-dire même pour te donner xam nga dans la quand tu dis quelque chose soo waxee par exemple tous les chats sont noirs. pour wax ne loolu du dëgg il faut ma génne la benn chat bu weex. Mhm. xam nga loolu. waaw c'est-à-dire soo ma waxee nit ñi dañuy wax ni euh, moom euh, pensée unique la nekk moi je te dis mon cas def ma woo man ma kaay dimbale ma un type suffisant qui la pensée unique du ko wax te xam na ni man la laay xalaat. Hmm. connais ma mode de pensée il lit je suis éditorialiste à Ce n'est plus. Donc il sait comment je pense et il sait que la façon dont je pense est différente de la façon dont il pense donc moom dafa xam ni ku nu mu mel doyul donc loolu moo tax mu ay conseil li ma la wax nag conseil yi soo ñëwee mu poser le benn euh, benn un problème il faut aller jusqu'au bout du problème loolu rek la te loolu day instaurer débat bi non je loolu daal c'est un faux débat il n'est pas il n'est pas du tout comme ça il écoute les il faut le convaincre si tu le convaincs y a y a pas de problème. d'accord Pastef jëf ngeen di élection élection yi jeex na est-ce que toog kenn sur une table pour discuter ci anam bi ngeen tëggee woon pour dem ci ak tamit yan projection ngeen fas yéene jël ëllëg. waaw xam nga loolu nag élection bi dimanche dernier rek la woon de. <laughs> waaw donc euh, donc yàggul noonu yëpp. évidemment daañu def bilan de campagne bon mais je pense déjà ci campagne bi moom ci boppam euh, le président Ousmane Sonko a été très pédagogue c'est-à-dire vraiment il a fait aussi une campagne bu niroowul ak ñeneen ñi en quoi c'est-à-dire d'abord il n'a pas fait sa campagne partout partout il a été partout mais il a fait des meetings dans les chefs de pôle Sénégal dañ ko divisé en huit pôles il a fait onze meetings dans les pôles mm -hmm. donc ça c'est la première chose mm-hmm. ci pôle yi ñëwal di wax ne que kii moo baax kii moo baaxul jël leen lii machine no il est venu ci chaque pôle lu ñu def lu ñu bindoon ci suñu programme mooy mooy vision 2050 mm-hmm. mu jël les éléments de ce pôle là dugal leen ci waxtaan boobu donc il a eu des conversations avec le public te honnêtement même même je ku nekk par exemple Matam soo demee ci meeting Matam bi xam ne liir loo programme pro euh, lire loo projet liir loo euh, référentiel bi waaw soo fa toogee daa xam région Matam lu muy jëlee ci loolu te loolu je pense que c'est important et il a fait de façon très pédagogique c'est-à-dire bon macha allah dafa mën wolof te gis naa ko muy waxtaan ay nit même des chauffeurs de taxi ont compris ce qu'il voulait dire te loolu la ñu bëgg def ñun dañu bëgg Sénégal koo mën a arrêté fii mun la projet lii la suma dëkk Njagañaaw lii la sama dëkk euh, Kédougou lii lañ lii lañ fa bëgg a def te loolu mooy nekk le standard pour que ñu mën ci pour que pour que ñu mën a dem ci loolu ah waaw Pastef nag ils vont se réunir bien sûr léegi xam nga on a quand même des urgences mooy installer assemblée nationale voter budget bi avant le 31 décembre loolu yëpp loi des finances et puis la vie du parti va continuer. dégg mhm. koo ñuy muñum muñum un tout petit peu euh, kañ la ñuy installé pencum daaw réew mi ñenn ñi ngi wax naan fii ak mën naa nekk amaguloo takk bu wóor ci date bi précisément. non date bu précise bi ñu am ah, moo ko. moi j'avais il fallait qu'on quinze jours qui je sais qu'on veut voter le budget avant le 31 décembre. Mm -hmm. mais kañ la ñuy installer ça c'est la c'est le président de la République qui va le dire. d'accord n'est-ce pas. est-ce qu'on peut s'attendre remaniement ministériel. ah loolu nag xaw ma ci dara. <laughs> ah mais docteur yaa ngi ci biir mais mais quand même ba léegi si wàllu communication mais ñu gis ni laa tête de ce passé par exemple. Mm-hmm. par ailleurs premier ministre du Sénégal bi ñu wane ñàkk kontaanteem si état nu mu taxawee. yenn saa yi sax taxaw taxawaayu président euh, ministre de la justice wala ministre de l' intérieur mu xaw mu xaw wax li mu si d' en tant que tête de liste Pastef bien sûr. Mhm. mais euh, il est aussi euh, mën na koo bañ premier ministre loolu tam ban xeetu communication la loolu. loolu peut-être il est un peu trop fin pour pour l' ensemble de la population moom ñetti taxawaay la yore. il est il est président du PASTEF. Mhm. xam ko il est premier ministre. Mm il est aussi Ousmane Sonko nit ni c'est c'est-à-dire que moom il fait la différence entre les trois choses vraiment il fait la différence c'est-à-dire su nekkee ci boppam euh, daf koy defee de façon personnelle et privée d'accord su nekkee affaire u PM il est très strict dans dans l'organisation du peuple c'est-à-dire que les conseillers ah, muy parmi ces conseillers y a qui sont a qui pas mm -hmm. même pas qu'il est parti en campagne ils, ne savent rien de ce qu'il fait en tant que président du PASTEF donc moom xam naa ni je sais qu'il est comment il est le jour bu mu doon wax il faisait cette différence là il n'avait pas la casquette de premier ministre il il y la la de président du PASTEF muy wax état bi nii la nii la évidemment ñu ñëw mais état bi ba ngay wax bi yow la mais moom du loolu dans sa représentation il était le président du PASTEF et uniquement le président du PASTEF. Euh, Astou bu nu mënee kiiwaale premier décembre bi ñu jëm. Mhm. président Macron a commémorer li président de Pastef am na position yu si amoon par rapport à la France mais ñu gis ne que le président Macron su boo xam day ñëw teewee fii nii loolu Sénégal. Mhm. Euh, loolu lan lay représenté ak loolu lañ si war a mën a xaar si commémoration boobu. waaw xam nga euh, bon le comité bu doon coordonné euh, affaire Thiaroye 44 c'est un, comité qui était hébergé à la primature cest le, le conseiller culturel moo moo mag professeur Diouf ak ñeneen ak ñeneen ñoo nekkoon ci comité bi di ko organiser affaire bu mel noonu nag après c'est la c'est la c'est le client le client ci lu ñuy def c'est la présidence donc c'est la présidence qui lance le carton d'invitation c'est la présidence qui pilote l'événement mm -hmm. c'est le président qui va faire un discours d'accord le premier ministre il, il ne fait pas un discours là-bas donc loolu jàpp naa ne comme aussi c'est une histoire qu'on a avec la France il faut aussi être euh, diplomate dans ce qu'on fait c'est aussi une façon de de de de, de faire en sorte que lu ñu bëggoon ci Thiaroye Kaw parce que ba léegi ñu bëri xamuñu ko c'est-à-dire que xamuñu sax nit ñi fu ñu tëdd. Mhm. xamuñu ko donc yooyu yëpp c'est des archives. et ça il faut qu'on les pour les avoir il faut avoir des rapports avec la France. donc ça venu mën na régler euh, euh, lu bëri euh, ci mbirum Thiaroye 44 bi. ah j'espère bien j'espère bien je pense ah, j'espère bien je suis même sûr parce que déjà gis naa les prémices di ci lu ñu am ci. Mhm. Euh, de France euh, avec le comité avec le comité préparatoire bi mu leen doon wax jël nañu ay engagement wax nañu aussi lu ñu bëgg def ak yooyu donc c'est déjà des avancées parce que ça on l'avait pas mm-hmm. parce que quand même euh, nu mu tudd Hollande sax en France wax na wax na ci mm-hmm. Hollande moom ci boppam qui était quand même président français donc xam na ci lu bari moom tamit waxoon na ci mm-hmm. donc je pense on va avancer dans ce cadre là d'accord jërëjëf docteur amoon nañu mbégte loolu dalal la ci matinal point sn. jeex na déjà. wala doyeloo wala ñu prolonger ba dix heures trente. je suis <laughs> à votre <laughs> merci beaucoup. jërëjëf Mohamed merci beaucoup docteur. Euh, ñu lay sante bu baax ak këram kon ba suba incha allah. Babacar jërëjëf. waaw jaajëfal ko bu baax a baax ci disponibilité bi. Mhm. di remercier ñëpp ñi nga xam ne ñoo ñu doon teewlu ci waxtu bi également jox leen dig daje ba ëllëg incha allah à 19h incha allah wala 20h dinañu am Cheikh Thioro Mbacké et à 12h incha allah on aura euh, Ahmed Diallo bu gox i moom mi bokkoon coalition ak Adama Gaye mhm. qui pour l' instant en état d' arrestation. Mhm. ak Sàmm sa kàddu aussi di ngeen leen dalal tey waaw Sàmm sa kàddu également on les aura à 10h allah. pour dellu si seen bi dans l' ensemble. Mhm. Cheikh Thioro Mbacké borom Touba le résultat dina ci ñëw def diagnostic. Mhm. incha allah aussi ak waa gox merci docteur Cheikh Tidiane Sow eh, kontaan nañ bu baax ci teewlu bi nga teewoon fii ci matinal point sn dinañ la dalal ci ñu yeneen i jotaay ngi gën yaatal li nga xam ne eh, moo di eh, communication bi jaa jëfal internet yi bu baax jaa jaajëfal Aliou Ba ci réalisation bi jox leen dig daje ba suba incha allah ñu yenn am ak salaam jërë ngeen jëf.